xam nañu ne bu fi courant bi du gisee ndox dugg si bi ñu loti seen marché bi te wax fi fajukaay tàmbali yoon wi jëm daar Rahman loolu de maire bi bu ko mënee parce que président de la république moo ñu jàppale ci courant bi. biñ toogee ci kaw tribune bi rek njiitu réew mi bi ma tuddee juróomi kilomètre ci Mbàkke dañ bi ma toogee dend ak moom dañ nañ ko yokk ba 15 kilomètres 15 kilomètres yooyu nag waxtu bi tembe soo demee quartier Baye euh, Baye Sawru Diop daanaka suul nañ lu mat 2 kilomètres 500 kon ci biir sanc yi incha allah rabbi balaa balaa vote yi danañ fi dugal lu mat 6 kilomètres ndox programme la woon boo président moo ko accéléré pour que ñu def ko nu gën a gaawee. courant baa ngi nii lépp leer na 24 kilomètres lañ dugal ci côté Mbacké bi dugal presque 19 ci côté Touba boo ko boolee muy 43 kilomètres ak poste yi ko booleel te njiiti réew mi pare na pour defar Mbacké ba Darou Rahmane mu gën a yombal transport bi kon nag fii. ci sanc yi suñuy naw la ñoo fi nekk monsieur président lépp loo xamante ni jàkkaar la ñoom wax leen ko dafay doon lu ñu kon nag maa ngi lay ñaax di ñaax ñëpp di ñaax sama bopp lépp lu ñu mën def pour di leen jàppale waat pour améliorer seen condition de vie ñu def ko ndax nit ñu am jom la ñoom it maa ngi leen di ñaax ne leen ay doomu aadama bu fekkee da ngeen am soxla te lu ëpp ñaar fukki at ak nangam soxla sas ngeen koy jooytu sottiwul ñu xëy diir bu gàtt ci diiru ñaari at ak genn wàll li ngeen doon jooy ñaar fukki at ak juróom ñi dafa leen la ca des xam ngeen ko mooy nit bu la jiyee teraanga dama koy fay teraanga président de la république moo xewle bi mu xewlee moo tax ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg nga denc ko pour moom mu am ndam ndam loolu nag dynamique bi ñu liggéey ci Mbacké ak ci Touba ak ci biir département bi bu ñu suñu borom dimbalee danañ ko dellowaat Mbacké Touba ak département bi ci loxoom te it ñu ñaan au soir du 24 février 2019 victoire bi président di am département de Mbacké bi